assalamu alaykum mbokki bitim rew no ngi len di nuyu way di len nuyu gën ga tedd nuyoo muy alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh barakaatuhu nuyoob julit ak mbokum julitam way waaye nuyoob talib ak mbokum talibem way it nag di leen nuyoo nag tubaarkàlla ci émission bu mag bi di xam-xamle way nag tubaarkàlla ñu len di nuyu nak ci sen télévision bu mag bi di Ndindy 24 TV télé Serigne Fallou Aw bu sa jax réew bi di jiital ci nuyoo bi ak Cheikh Mouhamadul taxa alxalifatul am li tariqatil muridiyya di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala guddal fanam wi te wéral ko teq fanam wi def ko doj ba mu yeggali mboolem naal yu mu naaloon ba naal yeneen naal te ànd koog mboolem murid yëpp waaye ànd koog mboolem umal islam bépp di ñaan ci doole Serigne Touba Cheikh Ahmadou Modou Mbend xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla guddal fanam te wëreel ko. barke Sëñ Tuubaa waaye noonu la ñuy nuyoo kilifa diine ci biir réew mi yëpp waaye it noonu la ñuy nuyoo kilifa aada yëpp di wax ni nag seen émission xam-xam le xamoon na moo leen ko waaye moo leen raw tey nag Pape Mboup Géwélu Serigne Saliou mi ngeen koy àndal mu dugg ci biir jàmbaari réew mi jukki leen jàmbaar joo xam ni suñu waxtaanee histoire ba pare ngeen xam ni jàmbaar la ndax ki ñu leen jukkil moom moo njëkk doon dammeel moom moo njëkk doon teen ci néegub géej kooku mooy kan kooku mooy les sukaabe ngooni jéey fatim ale al samba kusang mbay de caw saw mbaree la les sukaabe ngooni jéey mi ngi judd ci mille six cent soixante ci làmbaay ci yaasin demam nuju saala mooy baayam ci yaasin demam nuju saala ca la doon yàlla gelwaar baa ko jur ca la doon ñenn yàlla gelewaar ba tencandeela njaay la bàyyam tudd jaafoñ ba tencandeela njaay jaafoñ ba bari jaag leen ndeela paraat ngiwul la bàyyam tudd bari jaag leen ndeela paraat ngiwul ba damel tañu amari ngoon na sabel borom kat joroog bool ñu njëkk a nekk damel ci 1549 après la bataille de Danki noonu la sëtoo ci wetu woy juróom bu góor waaye kan mooy ndeyam ah tubarkal la sukaa bi ngoon a jéey ngoon a jéey Fatim Aale la ndeyam tudd ngoon a jéey Aale ak Déthié Fatim Allé ak Ndiagne Fatim Allé ñoo bokk ndey ak baay Ndiagne moo jur Didier Ndiagne mu meññ Kam Ndoye mu sanc Sangalkam Déthié Fatim Allé moo jur Demba mu jur Combay mu jur Ndend Mbay ca Kaba jéego ga ci yoonu Bambay Ndend Mbay nag moo jur Joor Mbay Ndende ñu jox ko bi ku ma kooñu moom sàngooy na dégg teejeeg ba mu am ci farba dem waar Joor barket bu naa ma joor jarga maa sàmba joor mi kenn gi tàkk ci kawam keroog mexe ak ngoone isa kon la sukaabe ngoone ngoone euh, jéey mbokkum réew mi la ndax ngoone jéey ndeyam fatim ale fatim ale ni dimba ngoone maa ne kaar jëleen kaar jëleen ak naar jëleen ak dabas jëleen ak xurja cee jëleen ah tubaar kàlla buur ba jël fi jëleen ñu la seen baay su gërëm jéeme kumbaay baayam burum njaayeen ba ku tooñ daw ku jànni dee biram njéeme kuma burum njaayeen ba bukaari biige sàngule biram kure kan taseeg daagu leen biram njéeme yeleer ba yeleen bay leyti leyti cëkkuli cukkuli njiglaan njiglaan sare sare njaajan njaay kon kooku juddu bi kenn du ko limaale waaye nag la sukaabe mi ngi juddu ci mille six cent soixante cinq ci mbul caasi ndemam nu ji saala dafa dëkkoo ko du ndaw ci néegu wéjëg Cees neew nuj saal bàyyi la sukaabe dafa dëkkoo koddu ngoy ndaw ci néegu bi bëggëj am ci lat kodd doog biram kodd gaa yi des ci comb lu metti li ci xoosu mbutum géej la na jigéen ñu doyul dëkkoo gayaan sëy ca làmbaay am ci ñoxor koddu gayaan ak lat koddu gayaan ak njóogu koddu gayaan la sukaabe ngoone jéey Fatim Ale ngoone jéey ndeyam ñu doog koo dénk ci Cees neew nuj saal mam am ci lat sukaa bi ngoni ji mi nga xani moy ben dom doom tax ngay dégg waykat naan lat sukaa bi ngoni ji ma ca jëlinu jabar wu jek wa fukki jabar juromi goro ku mu jël bu sa dom ndey ñuy bool leen ci yaa dem bu tenc jaay mi xal xal yi dog dog yi jël jigéen ñi séddale ci ri ñi mu mayon ñi ngi am batay way ñi mu xañon ñi ngi ñaan ko moy lat sukaa bi lat sukaa bi nak dafa judd ci kër ci dem di garmi yilif bawol gep laskaa bi juddu mënta dox daal di la xam ngeen ni ku juddu juddu bu rëy boobu am bokk yu mel noonu am ñu bëri ñu la yaakaar di la xaar nga màgg ba falu juddu ci néegub géej nga juddu lafañ yaakaar tas na waaye laskaa bi juddu lafañ ba noppi nopp yi du dégg du tëx waaye lasukaabe tëx ba noppi it mënta wax boole ci muuma nguuri jee ndeyam Fatim Allé sonn lool jaaxle lool fu ne mu dugg fa jooytu waaye lasukaa bi li muy lafañ lafañ bu xëyee daan na raam dem ca bul di di foo gone yi lasukaa bi xëy bis nag foyuwul nag di jooy jooy yu metti ngoone jee ndeyam jaaxle lool nga man de sama doom ji lasukaa bi jaaxle naa ci moom moom sax li muy lafañ lafañ daan na doxi ca gone ya waaye tey dafa xëy rek wut di jooy rek wax ko ay nijaayam ak ay mbokam yeb boba jaxle nañ ci ñu jël ko nak yobbu ko ci benn peul bu fa neewon di borom xam-xam lool ñaan ko dem ngari paté dekk ci pëlug rek gi neewon fofu ñu jël ko yobbu ko fa peul ba sétal leen ni leen de mënees nako safara daan leen la sukaabi ngoone jéy mi ngeen fi indi di la fañu ñu ne ko lu ko daal mu ne ndombay tànk yi mu war a falu bu ëllëgee moo laxasu ci tànk yi ba la sukaabi mënta dox daan ni taxuy di taxut ñu ne ko lu ko daal mu ne junjum yi géwél yi ko war a topp di ko bàkkal bu ëllëgee junjum yi moo fatt nopp yi bu mënta dégg waaye daan bu buñ ci bu buñ leen ci defalee ñaan loolu lépp dina deñ ndayam ne ko man de dema ngari yor ma fi dul sama jaar yi ma takk waaye boo fexee ba la sukaabe dox ba mu wax noppam yi dégg lu ma am tanaa la ko jox dema ngari paate ñaan ci la sukaabe jël saafara def ci biteel jox leen ne leen na ci sangu di ci naan bi ñu demee avant ñuy am fukki fan rek la sukaabe dox na ndayam bég lool ay nijaayam bég lool mbokk yi bég lool ndeyam ne day nag day woote ak femm nag mooy ak feet gu mag goo xam ni day sant dajale kajoor ak gépp ñu dajaloo mu xawaari xawaari bu mag rey ay nag historien yi wax na ni dema ngari paate moomu mu nga xam ne moo ko faj ba mu wér nguur jëye Fatim Ali mi ndey loosu kaa bi may na ko fukki jaam yu góor may ko alal ju bari nijaay mi nak ne ko comme ko la sukaabe dox nga li rek la ñun ñaan la mande legi lo bëgg mu ne man de nijaay reub la bëgg ñu ne ko la sukaabe doomu bur bu toll ni yow nga reub nga bëgg mu ne wa man dal reub la bëgg dan nijaay dama bëgg sa ñaari xaj yi ne ci kër gi nga wutal ma ci te wutal ma jaasi ak xej ñu wutal ko ñaari xaj la sukaabe jël ben xaj bi tuddu ko muñ ñu ne ko loo mundu mu ne loo muñ rek mu jeex beneen xaj bi lesukaa bi tudd ko yàgg ñu ne ko lesukaa bi ngoon a jéey sa xaj bi loo ko wunde mu ne lu yàgg rek dina wóor moom nga dégg mag ñi naan lu tëw feeñ daa yàggul lesukaa bi nag daan ni comme que sama bàyyi yilif réew mi bëgg na maa wër lëf ci kajoor wër lëf ci bawol ba miin réew mi lesukaa di ko def di rëbbu di rëbb nag ba daje génn góor gu am xam-xam ci àll bi mu nuyoog moom ne ko yow loo def fii mu ne ko man de damay rëbb mu ne ko yow de doom am nga lu gën rëbb kuy sa baay mu ne ko ci yaasin ndam moom calaw la njënd yàlla gëlwaar ba moom tey jëndee la njaay jaafuñ moom bari jaag la ndee la paraani yiwul moom dammel dañu amari ngoon sabari waroon ko ko doom am nga lu gën rëbb man nag mënuma laa ñaanal waaye dinaa la boole ku la ñaanal ba boo dellu see ci réew mi da nga yilif réew mi tegtal ko sëriñ boo xamante ni ma nga ca ñaani wuri ne ko bu la ñaanalee boo ñëwee li nga bëgg lépp danga ko am las kaaba ne bala maa dem nag ci ñaani wuri nga xam ne bitim réew la danaa wër réew mi nga xam ne sama réew bàyyi xamanteeg ñoom ba su ma jotee ci nguur gi xam ni ma koy doxale noonu lay doxee ba dem ci dëkk bu naan mbel goor fekk fa benn moroomu rëbbam bu naan dogo dogo la skabe bernel ko lol ne ko dama laa bëgg la skabe yendo fa bo mi ñibbi nag jël ak xej jam ko dogo ci jëba mu metti lol taw li bëri lol ku laaj dogo len def lii rek mu ne sama gan gi ma yendool jëm mu don ko bernel moo def li nek la skabe ba ñul dogo motax mu jam ko dedet waye la skabe moo motax mu jam dogo dogo jam ngir wuti ba am limu bu ñëwee mën koo xàmmee rasuka bi nag daal di aw noonu daal di dem ñaani wuri ba mu yeggee ci sëriñ ba fa nekk mu ne ko noo tudd mu ne ko man rasuka bi ngoon jëy laa tudd damaa dëkk ci am réew sama baay yilif réew ma ma bëgg a doon sama baay su ma màggee doon dara sëriñ ba ne ko loolu de doom say moroom daan nañ ko ci wut mu ne ko waaw mu ne ko loolu laa bëgg de mu ne ko waaw am na fi de mu ne ko yow de xanaa benn nga ci sa ndey mu ne ko waaw dëgg la benn laa sama ndey mu ne ko sunguf sii ma lay jox da nga koy denc bay dellu seen dëkk bu ngeen demee yaag say doomu baay da ngeen xeex xeex bu metti du ngeen xeex seen biir waaye da ngeen xeexal ay nit ndax ca yaasindeew nu ji saal seen baay ca cambal joom rey na ko bu ngeen eggee da ngeen xeex bu ngeen xeexee nag dana danañ danañ leen gaañ yéen yéen ñi bokk baay yow it danañ la ca gaañ waaye yow doo ca dee ñoom it duñ ca dee waaye boo bëggee jot ci réew mi suñ leen gaañee ban tëral leen di leen baaral di leen faj da ngay lakk sunguf si lasukaa bi ñibbi si defub diir ay doomi baayam lat kodd ak biram kodd ñu ne nan nan nan xeexal ca cambal joom mi nga xam ne moo rey suñu baay bi ñu xëy ak Caca Mbal Joom rey waaye ñu jël ci ay gaañu gaañu yu ñu dugal leen nag di leen ragal di leen baaral bëgg leen a faj lasukaa bi nag def la ko sëriñ bi waxoon lakk sunguf sa bi mu sunguf si baaral gi yàgg lool ñee mënuñoo tane te moom tane na kajoor di wax bawal di wax ñu naan lasukaa bi ngoon a jéey mi nga xam ne suñu doomu baay te njëkk na noo wér dañ leen ko dénk réew mi comme que ñun mënuñoo tane bu ñu tanee waxtaan nu ñuy def ba xam ka nañuy ñuy teg ci ci kaw bopp nit ñi mu doon teeñ ñëpp rafetlu xalaat boobu ñu ne la sukaabi ngooni jee Fatim Ale yow la ñu dénk bawal yow yaay teeñ bi la sukaabi nag yor ko yorin bu baax yii woon lool wax na ni borom xol bu rafetoon la la sukaabi daan na tëgg wuru sub gal def ko ay doom mag mu ne dalay woo wureeg yow ngeen yendoo wuure bu ngoonee mun la jëlal wurus yi nga yóbbu jox sa jabar mu tëggul lam tubarkàlla li mag ñi wax naan képp ko defal lu baax danga ko moom koo toroxal yaa ko tuxal waaye koo teral yaa ko tëral ka bawal gépp lasukaa jëf naa moom ñoom jëfi nit piyu ji teraanga ba keroog bi nga xamante ni nii gaa ñi wér nañ lasukaa bi ne gaa yi wér nañ dañoo bëgg jëlaat seen fuwaar bi bool gépp dañoo bañ ne ko ñun yaanu doy loolu nag danañ ci jànge ngor ak jom ak fit ak personnalité das kaa bi nga a jëyee nag histoire mënuñu ko résumé bu mu jeex waaye dañ ciy jël tuuti rek mbokkum réew mépp la ndax boo nee la joor ngoone laatir da naan damel teñ la joor ngoone laatir la ndeyam tudd damel mes teen joor ay baayam damel teñ la déggeen Jamur la degen ummi sam mastendi weji la bi ngone je fatima ali may waxtane ngani gankale mudum mo xureje bale ñaan amadou mo xureje mo xureje birma fatma ci borom ati bu ba ca ngi gis birma fatma ci mi maami gankal sat la na ngombul nim la delo nga nar bi gànnaar ngay gule lakkee këf-këf lakkee ko nga waw jakari ma sam may ak nënëx rax lay noonu joojoon ci ngone mu fanani ngoy fatma bu barke fatma waaye birima bu mu nguraan maa ngoone Fall baayam tudd bu mu nguraan maa ngoone Fall fas naan jaar ci dena ngi jaan de buraan ndàkk dena gërëw taaru mbul dena njoog jàkkari mëgëy yaasin dena saate nëcc ci dena ndënëx barki ñumbu dena cowaan yetti ba géddu mat ngor mat dena jobaas ngoone Fall ndaje ca saama njaate ca saama njaate ak mbaar njaate amari boobu cànni fëri ma tam tam tenjaneel njaa jaafun kon la su kaawee maami waa réew mépp ma ci nuyu koo xam ne sama xarit la lool muy sëñ Mbacke caam di ku baax di sama xarit loolu mu am bis bu mag nag di sant sëriñ Mbacke soxna loo turandoo bis bi kañ la lan demee tam xarit Serigne Mbacke Thiam nee na mi ngi ciy woo ñëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn sëñ Mbacke na ku mu war ngaa ñëw ndax ku ma sa xewle ñëw na ci sa bis teew fa ba sa xol sedd ci moom mu nit ku yiw. boo gisé xamni nit ku am personnalité la nit ku am classe sa bari valeur waye lolu warna mëna nek ci mom ndax ku la tuddi da nga jël ci mom juroom ñaari jikko serigne Mbàkke soxna lañ ko dippé garmi ga soxna Lo job, Mor jandam ma Samba ndak. ndak Amar ndak ak modou ndak ak maktar ndak. ak ma Samba gad ndak suñ kooki mo raxuju ko ma sen baye mo bind mu xaddimaatil kokki yu ma Samba ndi ci baye mo jang xaali mo ansel alxuraan mi du pend bu yo ma tar nu bi Samba mi leer ak ñok ba sëriñ Mbàkke sëriñ Mbàkke soxna sa waaje moo daan wax as góor day sol dugg ci biir ñi ñu toog waxam néew kooku mooy sëriñ Mbàkke sëriñ Cheikh Gaynde Fatma baayam Fatma gànkale ma ma xuréjo bale ñaan gànkal mooy maam ma ca jam yu bëri yu jekke yi te kon sëriñ Mbàkke nee na woon na ñëpp laan demee tam xarit muy sant sëriñ Mbàkke soxna sama xarit bi maa ngi lay bëgg baax waaye nag tubaarkàlla may nuyu Seydina Ousmane Diagne téer bu mag bi sama waa ji ci Touba Bagdad borom Touba Bagdad Couture moo jaar ci tubaab Touba Fakala ñëw bu yaañ bi nga xamante ni nii ku ko xool xam ni ki doon def lii jàng na métier am damay wax nag métier ak sàq ma yem bu ci mokkul sonal borom waaye Touba Fakala Seydina Ousmane Diagne sa métier mokk na. aadéeg nóore galaay tawar jaan jëm baag may jaan jëma yàq yaay baba jaan Seydina Ousmane sama xol sedd na. waaye noonu laay nuyoo mbokk téléspectateur Ndindy 24 yëpp di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax la sukaa bi ngoon a jiyee fukki émission du doy waaye mooy mbokkum réew mii di nuyu sama bàjjen soxna Faat bi Bintu Jaxate mu baax ma mi nga xam ne démb rek danoo yendoog moom ci ndigalal Cheikh Mahamadul Muntaxa yi muy nit ku yiw te bëgg borom tubaab ba boo ko xoolee mu feeñ ci kanamam soxna Faat Bintu Jaxate yaay Sëriñ Mbàkke Jeng yaay Baay Sadeex boo ko gisee muy dem bu laaj ci leen la jëm ci liggéeyal borom Tuubaa kese génn bëgg la amoon bëgg na ko borom tubaa toog benn gis-gis la amoon borom tubaa la ko gis noppalu ku ko fekk démb ci këram gee ak ni mu xumbe ak ni fa murid yi bëree nga xam ne sëñ tubaa nangul na ko man nag daa am lu may wax ci sëñ tubaa la waaye kat mag waxoon sëñ tubaa def ko sëriñ ak waxtaan ay mbiram jafewul waaye moom mu def la waaye ma ak la nawloo sa mbir jafe na sëñ tubaa di dem këram ak dellu sekki waxam jafewul waaye di dem këram ak dellu sekki ngërëm jafe na sëñ di dem këram ak dellu sekki alal jafewut waaye di dem këram ak dellu sikk bi yaram jafe na lam ca teg mooy yii mbir yu réy yi mu yor yàlla nañ ko may ba nu am mbir yi ñu naa jafewul ak yéen ñu naa jafe na soxna Faat Bintu Jaxate nag li ma njëkk wax ci wayu njëkk da cee am Sëñ tubaa di dem këram ak a waxtaanee ay mbiram jafewul waaye mu def la waaye maka nawloo sa mbir jafe na looloo loolu loolu la soxna Faat Bintu am muy nawloo mbiram da damay wax ne mag mu toll ni Sëñ Tuubaa ku mu nawlowul sa mbir du la bàyyi ci ab liggéeyam ba nga fiy egg fi ba nga ciy egg fi soxna Faat Bintu Jaxate egg ci liggéeyal borom Tuubaa kon jaxate yalla nga yeggale ci barkeb Sëriñ touba yalla nga yegg nuyu yoon nga gnu nu ba ci kanam a kanam fekk lépp yaayu Sëriñ mbacke sama geer gi yaayu Baye Sadex ma Jaxate Fatou Yuga yassine Dumbe Fall ngay mbokum rew mepp di mbokum mbakol di mbokum rew mepp rew mi ñu nekk senegal jaxate ko fi bokulul rek étranger la ci rew mi kon ma ngi nuyu sama yaay adjort ndey Mariam Diop mum El amel Diop mum gànkal Amadou Makhourédia badjan ma ngi lay nuyu di la ziar di bekk te di la ñaan nga gudd fan nga wër yow tamit nak di ziar sa njaboot gépp di leen ñaanal gudd fan ak wér maa ngi nuyu ñëpp di jaajëfal Serigne Fallou Ndiaye borom dindi 24 Fallou bu sa jax réew ba càmm ma rema kunta bàyyi mbeen Serigne sa fi jëlee ràgg ak rafle ak ràmm ak ràkkal xoolloo la fañ dekkal ko de ñi mu yóbbu seen i saa boo ko fi ñëwoon jamonoy dara ñëw fi jamonoy sabadoor sa turandoo nga baax lool oyof lool bëri personnalité lool yëg doomu aadama lool tey ku ne xam ne bis bi xat na waaye nga fexe ba ni émission bi dina am kon ñoo ngi lay siyaar di la ñaanal di nuyu sama rakk yi ma àndal Serigne Saliou mbub maa ngi koy nuyu borom sant yàlla ku tiir foofa ca Touba Salem taalibi Serigne Saliou lay la di nuyu si Abdou Lahad Mbuub xaside mi ma àndal ak Serigne Mourtala Mbuub waaye di jiital ci nuyoo bi sama baay mi nga xam ni moo fondé woon lii mu El Hadj Mor Dior Mbuub mu baax mi di ko faal yaa si biram debbu almañ sal tak mi ci góor bi maa ngi nuyu ñëpp di nuyu sëñ Mouhamed Kare sama waa ji mu baax lool gën taalibi sëñ Moustapha Diané maa ngi nuyu ñëpp su ma limee damay juum wala du ma matal waaye bàyyiwuma kenn bàyyiwuma fenn bàyyiwuma ñenn Cheikh Sidi Moukhtar Silla moom soxna Ndey Mbàkke ma yendool démb maa ngi lay bégee Cheikhu Lasrar bi damay faral di wax ni ñi mën a ñaan xam nañ seen bopp ñi mënta xam nañ seen bopp waaye Cheikh Sidi Moukhtar Silla jàmbaar ji borom lépp Serigne bi ku la fekk foofu xam ne Serigne Baara sa maam xëyul kenn gonte kon émission baa ngi noonu dañ koy dog dem ba beneen yoon xuddan wa rahmatan minallahi badi yàlla na yàlla defal ak dégg ak topp ci barkib Serigne Touba ci barkib Serigne Saliou Fat Diakhaté jërë ngeen jëf